li may wax il faut ñu déglu ko bu baax a baax je m'adresse à la population sénégalaise mais je m'adresse surtout surtout képp koo xamante ni yaa ngi uyoo Pastef maa ngi wax ak yow ma ne bu benn patriote jàpp ni année bii année wu campagne la Pastef soxlawul campagne année bi année xeex la. another bataille la nañu toj suñuy bopp ñu dugg ci hôpital yi génnaat dellu ci terrain bi na ñu tëj ci kaso bi ñu génn ci kaso bi delluwaat ci terrain bi nañ ñu rey ñeneen jugaat delluwaat ci terrain bi dama ne dama ne qu'on ne se leurre pas les patriotes qu'on ne se caaxaanul fawul kaful reetaanul ñun kafuñu ñu caaxaanuñu fawuñu reetaanuñu lan mooy ndeyu tey Ousmane Sonko waroon toog fii animé conférence de presse génn këram pour ñëw toog en tant que citoyen honnête libre ñu boko boko ko taxañ ko delloo ko këram ngeen yaakaar ne day caaxaan ngeen yaakaar Macky day caaxaan Macky Sall caaxaanul te bu fekkente ni sa projet pour lequel on s'est battu presque dix ans dañuy toog bañ ne ay weer moo ci des ñu koy salfaañe di ko ñàkkal fay di ko tomber dans l'eau yéen nax seen bopp. Macky Sall comme il l'avait préconisé pour Abdoulaye Wade en 2012 il sera dégagé du palais. Hmm. il sera dégagé du palais et dans les plus brefs délais parce que bu caaxaanulee toute cette machination là ci kawam lay mujj bien avant 2024. askan dara attanu ko réew dara attanu ko te ñu ko ëppoon doole téeméer junni ñoo fi nekkoon. tey ñii ñu ngi ci biir suuf ñii ils ont fini de façon très barbare ñii ils ont fini de façon très animale je le dis et je parle à tous les militants amul moo d'ordre bu ñuy xaar amul stratégie bu ñuy xaar amul toog naan non Mbacké la xewee esegul Dakar amul naan non c'est Bignona esegul Thiès dama ne à chaque fois que le besoin est là que tout le monde saute, que Mbaké soit à Dakar, que Dakar soit à Ziguinchor, que Ziguinchor soit à Bignona, que Bignona soit à Tamba, que Tamba soit à Saint-Louis, et que ça se manifeste partout au Sénégal. Que ça se manifeste partout au Sénégal. Demandez, notre droit de résistance est constitutionnel. Et on l'exercera pleinement et définitivement, entièrement, comme Macky Sall sera tienne pour di 2024 du bokk. te Sonko day bokk par force doole par force day bokk bu leen neexee nañu dem toog seen seen i tribunaux atte jugé ne Sonko tëj nañ la Sonko day bokk par force on ne compte plus sur cette justice et on s'adresse à la justice sénégalaise qu'ils prennent toutes leurs responsabilités la justice sénégalaise lépp lu ci magistrat def billahi wallahi wa taalahi di nga ko layoo après 2024 parce que on tiendra en règne ce pays lépp lu ci waay def di nga ko layoo après 2024 et que sàcc yi ànd ak Macky Sall ñëpp en commençant par Mame Mbaye Niang Mamour Diallo whatever ñoom ñëpp ils seront tous traînés dans la boue que tous les jeunes soient très fermes et restent très mobilisés y' pas de stratégie à attendre y' a pas de truc à attendre dama ne à chaque fois que le besoin se fait ressentir na mel ni fépp na fépp mel ni fépp. ku dugg hôpital génnatal dellu ci terrain bi tant que Macky bàyyiwul du ñu bàyyi et Macky Sall du du du comme il avait demandé pour Abdoulaye Wade merci